jëmm ji def na ko di Serigne Sam Mbaye war leen ko fii ndax wax naa leen man léegi ci tàmbali dama teew ci turu yoonu murid laa teewee fii ndax aruma mel na maam du sama baay du sama maam waaye ñett di wax sama bi nga Sëriñ Sam am na lu ñu def muy présentation te dama koy eggale wax li nga xam ne moom la bokk ñu wax ni thème bi nga xam ne leen ci li tax ma ñi mel dama am volonté bu ma jëm ci ñu loolu moo tax ma am. fit ak confiance ci ñun danaa la wax li ñu bëgg ñu moom la bëgg nga waxtaanee ci. kon li may eggale rek ci man li ma bindoo la li fi nekk lépp ay wax la mais sëriñ bi dara wàcc wu ko lu mu yërmande moo tax ndax suñu borom léegi egg ci moom yombul te itam bu fekkee egg ci moom yombul mën naa jël nag doomu aadama yi ma leen ko xal bu julli woon fekk ci moom laa ilaha illa allah rasulullah ak garab gi saxoon fekk ci moom laa ilaha illa allah muhammad rasulullah loolu su borom def ko ngir waar nit ñi weesu na ko waar nit ñi daf ko defoon ngir bëgg nit ñi waaru ci laa ilaha illa allah te loolu bu ngeen ci ko xam ay jullit xam ci kon loolu moo doon sabab bi yërëm nañu sëñ tuwaay mu wàcc gii mu wàcc yërëm nañu la bëgg nit ñi gis ko ak li mu def topp ci ginnaaw ndax ñu a mën a tëgg mu gën ko mën a saxal mu mën a tëgg tax mu dugg nga ci yàlla di dellu ci yàlla jeex ci yàlla lu mu war ci yàlla loolu moo tax ñu bëgg te mën naa leen jox benn exemple bu ndaw Eden tey jii moo nekk ci Togo di premier ministre kooku am na lu wax te lu moo nekkoon ancien secrétaire général de l'ONU mais euh, ma liggéey wàllu wax na ko ci ñaari rakkaay ñetti ak yi weesu moom moo wax dañu l'Afrique Nous, la rien à envier aux autres continents tant qu'elle se basera sur l'idéologie dont quelque chose sera le bon. C'est moi qui le dis. Afrique du Nord mukk li fee sukkandiku ci xalaat yu mel ni xalaat Cheikh Ahmadou Bamba du Sénégal bu juróom kon Cheikh Ahmadou Bamba ñëw ñëw te firnde ji mooy moom ci jëmmi boppam bi mu ñëwee dafa damm li nga xam ne moo aju ci wér mu wax boole yow ku ci egg seen tubaab yi fa nga egg rek ak caalu yu mën a ko may kon parent bu njëkk a bind mooy teg naa loolu fekk loolu yéen ñii la am moom it mënut na mën am moom mën na am loolu ni ñu ko wanee mooy mbokk yi ñu jël ko fële wala lu mu laay am da koo ci jëw foofu Cheikh ci yoon bi li mu ci am bariwul lu ko daal kon loolu mooy li xam ne moom la ñu ko jël ko jël na ko ci topp mooy سنون نبعهم معنا على الكلمة ليحل أن أرى رضا مؤبدا نقول من بلوك نفس النبع تنبع المسجد تنبع المسجد تنبع المسجد sëñ bi nee na maa ngi leen di yee yéen ñëpp xamal leen ab coono benn bu métti lool bi ma daan daan am ngeen mos a borom. xëy naa lu ne loolu sëñ bi wax kon ku bëgg am ci yoon sëñ bi dara da ngay sonn te sonn bi ko sellal jaar ko sunna jaar ko topp sëñ bi ndax kuy bëgg ñoom te ñoo ci yëngu ñoom ñoom xale yii dëkk Dakar sax tey jii am na ñoo xam ne wax nañu bu ñu jëndee def nañu ne Michael Jackson lañ nekk ci année te bëgg ko mu doon la tax bu ñu waxoon rek dañu ñoom kon kenn ku ko seen tubaab moom war ngaa fexe ba ku la seen xaw naa jaaw ak ak ñu ko seen loolu mooy la seen tubaab beneen bi ci topp mooy loolu fi maanaam ñoo ci ëpp waaye dina dem ñoo ko mën dina faaxal mën a soxla nga sa ëpp seen bi nee na samay ndax yi nga xam ne moom laa tàllal loolu yi ma tàllal yàlla mooy fi ndam yi ma tàllal mooy yàlla fan yàlla te loolu suñu la ko jël na ko ndax nee na fii ci Sénégal li taxoon jënd tubaab bi juutal bi dara ñu ko ko la ca tuuram moo ko wala nga am naan ci maam jënd kenn ku nekk daa yëg doon dara kon loolu ko jàpp alhamdulilah suñu sàmm li ñuy wax ne loolu ñu ko wax xam nga ko mooy nee nañ ay yeneen yoo xam ni dañoo fekk jamono suñu tubaab ñoom ñi ñu toog dara woon nañu bàyyi la ak kàddu gi ñu toog ñoom ànd ak bala xel ñëpp ñëw ñu wax moom daal lu ko defal lii seen ñu wax ñu ci toog ñaar rek daw na fi ñu ci wax jëm kon ñu bàyyi suñu saam mu tàmbali waxtaan bi maa ngi leen di nuyu di leen tam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 الحق وتواصوا بالصبر ki jullit yi bokk taalibe yi di sant yàlla ñu ci yonente islam leen nuyu leen sant di leen ndokkeel ci bis bi ak daje bi di sàkk ci yéen ñaan di leen ñaan

baat yi ñu fas yéene waxtaan incha allah ci thème yi ko sàkkoo suñu borom dafa jiri ci jamono ngir yee doomu aadama ci xabari jamono jamono xam ne ne melaw suñu borom la moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne laa tasubbu dahra fa inna dahra bu leen ŋàññi jamono ndax jamono yàlla mooy soppi jamono bi ko doxal mu tagg ci lu mu jagleel doomu nekk mu di dundam doomu aadama seetee li ci kanamam ak la ko cay taxaw mucc ak la koy taxaw am lu bëgg seet yi ñu war a waxtaanee ni mu baree seet am ngërëmal yàlla ba mucc ni mu defee mu daal di dellu war a nay ci jamonoom ba du ci xajal dara loo xam ne ko jël ëllëg mu di perte suñu borom jëm kon ci jamono ngir bëgg a jëloo si xelu doomu aadama ci jamono li mu am ci jamono ci dundam mu giñ ci nag ne inna l'insaana lafii doomu aadama dafa lap ci perte ak perte fi ko wet bu nekk ni mu doyadee ni mu ñàkkee kattan ak yi ko wër te di ko soxlaal ak di ko fàtteloo li ko war ni mu baree muy mbir mu tiis mu war ci jëmloo si xelam waxtu nekk ndax perte boobu mu mucc ci wala mu wàññi ko ba néew ndax perte gi day balay doomu aadama day jàkkaarloo moom waxtu ni muy génn àdduna ne ñetti taxawaay yoo xam ne doomu aadama bu ko nelaw bu ko yëngatu te xelam bu ko dal muy waxtu woo xamee ne dem na ba toll ci waaj tawat ci suuf mu jëm noog lal xam ne du ci tëddati mukk jàng na mu bëri xam ne duñ ko solati mukk xelam dem ci àll mu xam ne duñ ko jëriñoo mukk seet lépp lu mu amoon xam ne tàggu na mu seet nag lan la dawaloon ci kanamam gisul dara lu am solo mu rëccu foofu la rëccu tàmbalee suñu borom nag ngir bëgg a delloo si xelu doomu aadama ci rëccu boobu ngir ñu bañ koo dal mu jëm ci jamono ji nga xam ne ci la war a jëfe lépp li mu bëgg a ne wala asr inna l-insaana lafii xusr perte boobu nga xam ne nag nii Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu wax ci bu doomu aadama noyyi te jaamu ci yàlla perte bu rëy la waaye perte bi gën a rëy mooy diggante noo fi mu jëm fi mu dikkee mu mooy ca yàlla loolu mooy perte doomu aadama bi ngir moo tax perte boobu perte gi mën ko wet bu nekk ba mu des benn bunt dong mu ubbil ko ko bunt bi mooy إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من يتقل فر إلا الذين آمنوا إيمان من قم العمل الصالح من جف يرفت التواصي بالحق من دين كنت دق التواصي بالصبر من دين كنت من ñu dellu ci iman bi nga xam ne mooy ndey lépp te moo di ngëm gëm mel ne mala bu ñu dénk nit muy xar wala muy bëy muy tuuti loof yudahhiruhu lillaahi ala iyaalihi adaqtuhu nakaali wala ubaali alal ji mu mën a doon lépp maa sama alal la dama koy jël ku ma soob rek ñi ñàkk samay njaboot lañu ñi am dama leen koo dénk rek waxtu woo xamee ne ñi ma dénk sama alal nay nañ ci sama njaboot gi ma mosal leen sama mbugal te du ma faale seeni jooy ndax bëgg kon doom aadama yi jëriñante gannaaw jëf jëriñ nit ñi moo gën ci jëf yi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 jaamu ci kaw suuf ju gën a bañu bakkan ju yàlla gën a bañ bakkan daa muy sukkale si jëm sa noon bi gën a bon ci yow di sa noon bi gën a màgg mooy sa bakkan bakkan nag bu ñu ko waxee dafa niroo bànneex waaye ñeent ñooñu muy nafsu ak seytaan ak hawa dunia wóote nañu tuuti bakkan moom moo lay xiir ci fayu moo lay xur xiir ci kii daf ma suufeel naa ko def nangam moo lay xiir ci kii dafa wax lu du noonu moo lay xiir ci bañ a teg sa bakkan lu naqari bañ a xiif bañ a mar bakkan la yi moom daf lay xiir ci loo xam ne sax amuloo ca bànneex amuloo ca dara mu roox la ba dugal la ca